asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Tektal TV di wax ne Tektal TV ñëwati na fii ci Paris indeeti gan gu mag goo xam ne que doon ko laaj muy kan international la ku nga xam ne que équipe nationale u ci boppam ña fa doon sponsor moom ñoom a jàngandoo bokk ak ñoom diplôme doon koo xam ne que faj ak ñaan mbir yi du làmbatu ci moom day def ruqiya di def euh, xeetu euh, ventouse boo xam ne que massage boo xam ne que amul ay tuuma amul góor maase góor jigéen maase jigéen yëpp mi ngi ci noor Foire fi takkaloo yëngu leen mais moom nag international la saraxule la saraxule ku ko xam ne mooy borom France mooy Sissoko Habbatu Sauda S as S Sissoko Habbatu sawda ci biir Tektal TV ci Paris Tour Eiffel Sissoko Habbatu Sauda ñu ngi lay nuyu looy nuyu ak àdduna wërngal këpp bi setaan seetaan ci fii ci Tektal TV ci Paris. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa sallama tasliman kathira mm. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk àdduna bi képp ku ma déglu si foo nekk mënta nekk si àdduna bi mm. ma ngi ni ku nekk si tur ak sa sant nax du julli rek ñooy seetaan. àdduna mhm. bépp ngi seetaan. Tektal TV ngeen abonné Tektal TV bés furus bés kolos émission bu ñëw ngeen am ko kum neex nga abonné kul neex bul abonné abonné doo fay dara wax nuyu sa mbokk saraxule yi ci saraxule pare. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. maarin sonin ko maarin xammu kaano ñaka sukun bes togonda jammu nga mhm. nasi nokku sulenki ngama sun kan xanne ko mpatinta ba kamedi mhm. bar lenki ni olofon émission ngay pari nogondi sensibiliser ki gani Tektal TV asmakatu oloho ñani a mhm. ani invitena dakar nga bakka agala ningol len koy soronga len ko a ni to pare no gondi mati sere sugal si soho alle ammar mu nyawari bari lahi ndan emission kita kala koy dakar ko nga mhm. aywa an nawari siri maren sonin ko maren xam xano kadu xam marki kan deme si soho habatu sauda kana en produit soho bano kana hay eske marki ngay mi marki tay marki ngay su kenyen kenyen ke abarka Sissoko original. am il est para ñi ñaata. waaw xam nga dama damaa ñëw yëre bi. Ah. ñëw logo bi ci biir logo bi ci biir. waaw lii pour mu doon prédicor. pour wàññi wàññi ne damaa bëgg sama produit bi. da nga bëgg sa produit wóolu ko bëgg sa marque bi. bëgg sa marque bi. waaw dama ko nëbb fenn ko roy xam. waaw ko roy roy du nu. damaa bëgg sama mark bi. Mm-hmm. damaa bëgg sama produit bi. fekk ma dem aéroport. si digg tubaab bi. waaw si turkish si mhm. arabe yi. Mhm. dama dugg ak yére bi. Mhm. fu nekk ma wane ko. waaw ñuy liir sama lii. espagnol yi nangul nañ ma ko. waaw sénégalais nangul ma ko. waaw adduna yëpp nangul nañ ma marque bu baax bi. waaw kon képp ku gën sama produit na nga xool marque bi bala nga jënd produit bi. S as man produit bu bëri laay defar. produit bu bëri lay defar. di wax ne président Macky Sall kii ku mar a jàpp ku mat a la ndax ñi mu doon jàngandool seen réew dañ leen a dooleel màggal leen. sargal leen yëkkati leen jël def leen ba nga xam ne que lu ne mën nañ koy def ba ñenn ñi ay équipe nationale Argentine sax ci sponsor yi leen bokk kii nag lu baax la yor te mën naa faj ñu bari te lim yor euh, dar bi day jeex da koy faj daal la boo xam ne que dafa ànd ak sell ak rafet ak euh, lu jaar yoon daal lépp lu baax rek mi ngi ci kon si Sissoko Habbatu Sauda gëstu gëstukat la am na ci lu ëpp cinquante nangam produit wala mat na soixante léegi. cent cent nangam. cent e quelques. cent et quelques produits yu bokkul moom la si Sissoko Habbatu Sauda am Sissoko Habbatu Sauda nag ku bëgg mbiram euh, moom nag saraxule bu miine France la numéro yi maa ngi la ci jox rek yéen bi ni ci écran bi noonu moom la dafa 77 661. 52 32 77 651 52 32 bindal maire bu dee mënul bindal boppam. 661. 661 52 32. waaw boobu mooy bu ñu. bindal maire bu dee mënul bindal boppam paa bi bët yi neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir tegtal mooy daw ñu koy defee fii ci euh, Paris ak SH Sissoko Habbatu Sauda wala Issakha Sissoko 77 661 52 32. beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 yeneen yaa ngi noonu bindal naa la ko nga bu dee nag da nga soxla produit dem jëndi demal fi taqaloog yëngu leen nga ñëw foofu rek nga jënd produit eh, ñu jaay la ko am na asalem ah, am na Medina ci jiite am na am na Kër Massar am na Kër Massar si Auchan bi si Auchan bi ak fan ak Saint Lazare Saint Lazare bi si Saint Lazare bi waaw am na fépp ci àddina bi am na Bakel am na Nouakchott am ah, na Nouakchott am na Nouadhibou. Nouadhibou. am na Serekunda. Serekunda. am na Banjul. Banjul. am na Abidjan. am na Abidjan. Abidjan fi nga xamante mooy grande mosquée bi. ci suuf grande mosquée bi ci suuf. waaw am na Gabon. am na Gabon. Gabon fi nga xam ne moom Petit Paris. Petit Paris. waaw. Petit Paris galerie Zamzam. galerie Zamzam. ngi foofu tamit. am na France fi. am na France fi ci fan la nekk. am na France Aubervilliers. waaw am na Aubervilliers. Aubervilliers ak fan nekk produit yëpp nga maire de Santois. Mhm. am na La Chapelle. waaw am na fu bëri daal. kon Mamy Daba Fall dégg ngeen ko. waaw ah. Sayer Fall am na Espagne am na Espagne waaw. am na Saragossa. am na Allemagne tamit. am na Allemagne. amul Celta Vigo ah. South Africa. waaw ah, jeex na mais nag am na ci Dakar Sénégal Tektal boutique Oumou Ndour nekk fa ci wetu station Xaar Yàlla numéro bi 77 108 51 51 77 108. cinquante 51 ku bëgg produit si soxo xabar soda yëpp dama tegtal boutique rek. nga numéro yaa ngi noonu nga jël ko di nga ko am bu baax a baax. macha si soxo xabar soda. dëgg émission bi dafa ànd ak miracle. parce que dañ ko bëgg a def. si soxo ne mi ngi Turquie mi ngi Dubaï mi ngi Réunion mi ngi nekk ndaanaan yu mag yi international yi nga nekk ak ñoom. ma sonal la sonal la sonal la ba nga dagg ci sa temps ñëw nangoo def émission bi nii bu baax a baax. pour jëriñ parce que dama laa fekk sa dëkk bi nga xam ne que yaa ko miine téye ko ku ne saraxule na France ku ne saraxule ni si soxo xabar sawda ak jàppalente bi ngeen di def ak nga xam ne yow saraxule yi rek bu doon jënd sa bagage doy na léegi nag Sénégal yi ñëw bëgg koo xëccoo wala fi bëgg ñëw xëccoo koo euh, saraxule yi mooy wan ne li nga yor baax na kon ñëwal ci liggéey si soxo carrément xabar sawda li mu undi ci njëriñ léegi nag man damay ñëw espécial ci sama xarit muy pompe bi nga wax ñu lan mooy njëriñal pompe bi alhamdulilah Cheikh dina la sant bu baax a baax mhm. balaa may sori waaw ndax su may mbokk ndongo daara laa jàkkaarloo télé bi mhm. samay sëriñ samay xarit. waa Fass Touré. waa Fass Touré ginnaaw ma nuyu sama ñaari waajur ba pare. Mhm. ma nuyu sama cheikh sama sëriñ sama papa sama xarit mooy cheikh Abdou Aziz ko yàlla sàmm. may ko mhm. gudd fan ak wér-gu-yaram sama papa bu baax boobu. Mhm. ak képp ku jóge Fass Touré. ak bépp ndongo daara bu may seetaan. ak doomu bu may seetaan. ak sénégalais bu si Afrique adduna bi. nga bëgg si soxaba sa si soxaba moom yematu si saraxu lii rek mu si wolof mu ngi si njaago yi mu ngi si pëli mu ngi fu nekk bambara yi ba Mali. kon ñun international leen kon mm-hmm. tey jii man ñaari président laa am ñoo xam ne ñoo ma gën a jege ña nga Macky Sall. mais mm-hmm. bul fàtte Adama Baro tamit. Adama Baro kon ko fàtte bu baax a baax a baax bay ci jàpp mm-hmm. maa nuyu bu baax sama xarit la sama wëllëre la. dëgg la Gambien la. maa ngi tukki dem fu nekk si àdduna bi. waaye hmm. sénégalaise laa tamit. sénégalaise ndax li ma am Gambie loolu laa am Sénégal. loolu nga am yow daal ñu am benn tànk baa ngi Gambie benn baa ngi Sénégal. waaw ñetteel baa ngi Mali. ñetteel baa ngi Mali. waaw alhamdulilah rabbil alamin hmm. kon maa ngi bu baax. maa ngi lay leen gërëm leen sant. waaw Tektal TV Cheikh kontaan naa bu baax a baax. kontaan nañ bu baax a baax. effort yi nga def bi nga ma mën a am fii tey. Hmm. foog ma wax ko gars billaahi dégg ngeen ko. foog ma wax ko gars yi gars yi déglu ko. Mm-hmm. ndax Cheikh bëgg na képp ku sama produit. Mm-hmm. bu am wér yal na yal si yàlla la tamit tiyaaba. amiin amiin amiin ndax man nit ñi mënuñu ma fay. Mm-hmm. li ma leen defaral kenn mënu ma fay. macha allah dañuy weccante tuuti la nga jox bu tuuti. nga feebar feebar bu métti. la ñu liggéey la nga sonn nga feebar. nga ñëw ñu jox la garab boo xam ne daf lay faj. waaw di nga wér. mu ne taxaw nga dox sa dox. loolu mënoo amoo fayam. amoo fayam de billaahi feebar bi nga xam war nga fi ay cinquante millions. Mm. nga ñooy fay. même mm. pas cinquante nga wér. foofu mm. amoo su mun a gis dara nga aar sa bopp. pour feebar yi bëri. ak liggéey bu bëri ak njabar bëri. ak kort. ak feebar munu am doom. nga am tension. ñu njabar la sa bopp di métti sa yaram di métti mënoon a lew guddi. ngay tiit di métti du am doom yaa ngi may dégg. xol bu métti naqar. tëju tëju ah? cat jàpp la nga ñu si sox mu jox la benn pompe mu dindi ko. mu jox la alxayaat mu dindi ko mu jox la li ñu sàngo mu dindi ko te bépp garab boo laal nag ak sunna la jógee. ci alxuraan ak sunna la jógee macha allah. mu doon lox mhm. pompe bi. waaw miracle bu mag la. pompe bi waaw ñëwul ci njëriñal pompe mu ngi fii France man pompe bi yor fu mu toll moom. pompe bi boo ko yoree na nga tëdd nga nelaw. nga tëdd nelaw. boo jógee suba teel ba ko pompe sa yaram. waaw liggéey mënu la jot. jàpp. déedéet. Mhm. ndax li toog liggéey li yàq liggéey moom lañ jël. def ko si biir na ñu ma doon ji ma liggéey kon jàppul pompe bi la. Mhm. boobu benn la boo ne du guddi mën na la jàppale nga nelaw. da lay jàppale nga nelaw booy tiit. Mm. daf lay ko dindil. Mm. bu fekkee da nga diis. waaw mu dem a daf lay dimbali. doom yi jooy guddi daf leen dimbali. daf lay dimbali allah pompe bi moom miraculeuse la. Mm. boo xamante ne man sax mënu ma ko expliquer nit ñi. mënoo ko expliquer. yaa ngi may dégg am na ñoo xam ne sax dañoo toogoon. seen jëkkër sax tëju ak ñoom. waaw yoon bi. dañu toog ay at yu bëri seen kii pour sa téléphone sa problème la. Mhm. waaw bu ñu nee pompe bi. sa mujj na leen woo. lan moo ko di ndax dafa amoon liggéey. dafa amoon liggéey pompe bi moo ah. laa faj feebar bi jóge si yow. Mhm. jinne bi daw bàyyi la. jinne bi daw bàyyi la nga am jàmm. nga am jàmm mais pompe ku mel ni ma koy def ba ëppul. man damay naan café boole ci. waaw amu bépp da koy sama biir gémmiñ. samay bët sama bopp sama fu ma nekk. pompe bi boo ko pompo. waaw dafa am ay garab yi fa nekk boo xam ne yàlla moo ko wax si alquran waat si yooyu leen jël boole ko si pompe bi. moom lañ boole ci pompe yéen ci sab am na yoo xamante ne bi mu ngi si alquran. Mm-hmm. kon di ngi may Sayer Fall suba pompe bi Sayer Fall dina la ci may. man dina la wax may ah. dina la wax ne. Mm-hmm. dina la wax ne. waaw. Eh, pompe bi. waaw. dafa barke. dafa barke. ndox sam-sam bi rek barke la. ndoxu sam-sam dégg ko pomp bi ndoxu sam-sam rek barke la. wax ak ba neexam. lépp lu mu wax yàlla moo ko wax loo yàlla moo ko wax ñeenti sasam garab bi mu wax def nañ ko mm. foofu def nañ ko yàlla wax si alquran mm-hmm. tuddi àjjana kat yi neex si àjjana mm-hmm. yooyu yëpp mu am na yoo xam ne am na am na mandarga si àdduna bi am na mandarga ci àdduna bi yooyu am nañ ko ba dugal ko si biir garab bi dugal ko ci biir garab bi lépp la ñuy wax si du lépp la ñuy wax ci télé bi waaye garab bu baax la ñëpp war nañ fexe ñu am ko ndax France bi moom waaw macha allah macha allah pompe bi ko sa kër mm-hmm. a jàppale dina génn sa kër sa kon waa France jërul ngeen di sonn ci GP di kii pompe bi am na fii ci biir Paris. am na ku ci bëgg a jot numéro yii ma la bindal ci écran bi jaar fi rek ci jot. ku man di doon ku nekk ci Europe bi. am na dëkk 25 euros rek la 25 euros rek. nee na 25 euros rek da ciy jaamu yàlla. <laughs> jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi. kenn bàyyi xel ko bu baax a baax pompe si sox xabat sawda bi pompe bi jigéen ñu wérul ak baax na ci moom. Eh, Cheikh. waaw jigéen bu wérul. Mm. jigéen boo xam ne mën na jël ëmb. jigéen boo xam tiit. waaw dafay ragal. waaw wala bop buy diis. bopp buy métti mm. wala muy xaj si liggéey kaayam. waaw. pompe bi nu mu mën sa man mënuma wax lépp. mënoo wax lépp man nag si gàttal. waaw man ak yow. waaw li tax ma am fi émission te ma tax nangu taxaw si seddaay bi fii. taxaw ci seddaay bi fii. seddaay baa ngi may dugg waaw. te man du ma def li si biti bari fii du ma doxantu yow ci ak personnalité yéen a nekk man géej naa fii. waaw si cinq gis ngeen ren man taxaw ma sensibiliser fii. man maa leen indi lii te chaque trois mois ma ñëw France fii. Mm-hmm. deux mois trois mois ma ngi France fii. waaye mm-hmm. fii. waaw cinq ans mu ngi ma sama tànk fii. mu ngeen ko. yaa ma fi andi. maa ko fi indi de billahi sama nit la. benn li ma leen wax tamit. Mm-hmm. Eh, Cheikh. damaa nekkoon Paris fi nga woo ma. ma woo la. ma ne ko aw ma jot damay dem. da ngay dem Turquie Turquie dama am. réunion da ngay dama am réunion foofu pour trois jours. su ma fa jógee damay dem. fële. Dubaï Dubaï. après ma dellu si waat France. Mhm. waaye mois de octobre lay doon. Mhm. Euh, novembre lay doon. novembre 10 novembre. te tey ñu ngi si 18 octobre. mu mhm. ne Cheikh man aw ma jot. nañ ko bàyyi beneen nga ne ba beneen yoon. ba beneen yoon. sa yéene bi yàlla mottali ko. yàlla mottali ko. ma ñëw ma dem ma nekk Dubaï. Euh, astafurlah ma avion di dem rek ma publier ko rek. sama partenaire woo ne ñu ngi ñëw Paris. Paris boo xam ne pour war a lekk la war santé la. ñëpp mm-hmm. nga fekk ko ndax comme yaa ngi seen Mali yaa ngi Paris fii. Mm-hmm. te juróom benn junni stand war nañ ko fa am. war ko am. te fu ñu ni nii ba cinquante mille personnes. Mm-hmm. war nañu visiter. kon fexe fexe nga ñëw. fexeel nga ñëw. léegi nag bu ma doon ñëw si yoon bi nag. ma woo la ma ne ko Cheikh ah maa ngi ñëw Paris danga ne ma mënta maa ngi ñëw. nga jël nga jóg Espagne tey. ñu ñoo fekkante fi ñu fekkante fii loolu. Hmm. def nga effort. def na effort man tamit def sama effort. yàlla jàpp ci ah. yàlla jàppale ñu. Hmm. ba li am tey. Hmm. Cheikh dafa bëgg a wane ne si soxoo. doole bu mu am Afrique lu ëpp loolu la am. Europe moom la am Europe de il moo tax ñu koy ñëw di ko gis ndax ku ne saraxuleeg mbokkam. dëgg ñoom Konaté bi nekk Liverpool yëpp jàpp leen ci si soxoo bàyyi leen ko kii seen mbokk la. bu leen ko sàggane jàpp leen ci mbir yi Adama Barrow jàpp ci président Macky Sall jàpp ci ndax lu baax la yor man du ma ànd ak kuy dóor ma xam ko ku yor dëgg ma ànd ak moom damay ñeme gis nga ni ma nekk en l'aise damay xam ne nit musuma kalaame ak Sissoko Sissoko man ngaa dem faj sa bopp dem ci ñoom Fatima ñoom Fat Jaxate ñoom Malick jubali fi taqaloog Nord Foire foofu fi taqaloog yëngu leen ñoom Basir ñëw rek jiite ñëw jënd li nga jënd am ci sa bopp noa choc ah wala nga dem tegtal boutique 108 51 51 numéro baa ngi noonu ci euh, station xaar yàlla nga jël bagage Sissoko Habbatu Sauda wóolu naa ko sama boutique du lu ne fay dugg kon njëriñ leen bëgg bu baax a baax. kon pompe bi daal jar na njëgam man pompe bi dama ko fan moo tax ma ciy dem. bu baax baax waay France ñaari grade bi moo fi gën a jar. ban ak ban ak bi. karité bi. karité bi. karité gaas si soxo bi. gaas si soxo bi. moo Isaaxa si soxo am na bu mag am Isaaxa si soxo. su maam laa ko tuddee. sama turandoo. gaas si soxo dégg ko. karité boobu li ma si dépensé bari na trop. bari na trop. Eh, Cheikh waaw. quartier boobu waa France fu ñu ni nii. waaw quartier pompe bi. Mhm. ak cuuraay bi bu ñuy cuuraayee pour cuuraay seytaane bi. moom mooy gën a jar France fi. Mhm. dañ ko bëgg lool. Mhm. te ñuy respecté nañ ko lool. te suñu sañoon tey ñëpp am ko seen kër. ñëpp am ko seen kër. waaye Saraxule moom. gàcce ngaalaama. gàcce ngaalaama. Soninke yi. Ah. gàcce ngaalaama. gàcce ngaalaama. ba ma woote Paris. waaw ñu fees del. six mille personnes. waaw dañ ma ñëw wuy si benn bés. benn bés. ndax macha allah xam ne sama valeur. waaw xam li ma mën. Mhm. bëgg nañ ma. waaw te fonk nañ ma. Mhm. respecté nañ ma. respecté nañ la. fii garab boo waroon pare fii nga jënd ko 5 euros. waaw ah, bu mel noonu mooy si soxo tamit yor nañu si si soxo 25 euros. waaw dañu romb dem si si soxo bi. Mhm. lu tax ñu romb. ñu romb lu tax ñu romb bu 25 euros ñu dem jëli 25 euros bi. waaw ñu am kóolute. dana am kóolute. ko wóolu. dañ ko wóolu xam ko. xam ko. xam njëriñ bi ci nekk. utiliser ko. waaw gis ko ñun saraxule yi pour ñu topp ñu. dafa jafe lool. dafa jafe lool foog ñu seet la. ñu seet la ñu seetantal la bu baax seetantal la bu baax seet la baax ba xam li nga yor dëgg la. ba nga yore ndax dëgg la dëgg. Mm-hmm. ku xam ba nga mën a maîtriser sa mbokk saraxule yi. Mm-hmm. amul lekk làkk si àdduna bu la ko mën a mënta maîtriser. Mm-hmm. te ñoom bëgg nañ ma respecté nañ ma. Uh-huh. ba pare ni nga ma respecté nag. ñi nga xam ne olof yi. boobu laa am Sénégal. kii boobu la am Mali. Mm-hmm. moom la am Mauritanie pël yi da nga ne ñoom ma gën a bëgg saraxule yi sax. olof yi nga ne ñoom ma gën a bëgg sarax ñoom ma gën a bëgg. waa Touba bëgg la waa Touba. waa sëñ Afia bu sëñ Afia bu Sow. Mm-hmm. sëñ Maodo. Mm-hmm. ñun ñëpp bëgg ma. waa Faas Touré. bëgg ma lool. di ma di ma tiitaru. macha allah suma sëriñ di ma tiitaru te bëgg nañ ma. macha allah Cheikh daal en tout cas pour wax la lu gàttal daal. waaw man Sénégal. waaw muy Mali. mbokkum ñëpp nga daal muy Mauritanie ñëpp muy Gambie. ñëpp ma bëgg. ñëpp la bëgg. kon loolu ma tax ma ne doomu Afrique laa. Mhm. doomu Afrique nga Afrique laa. doomu Afrique nga te sagu Afrique nga. te sag Afrique laa. te da ngay liggéey lu am qualité. fu ma dox. bu sa bénéfice di néew. te sa njëriñ la koy jaral. man loolu du problème si man. waaw li ma am. Mhm. mu bénéfice. waaw. bu baax bi ma am. Mhm. réputation bu baax bi ma am. ak li ma fonk ak li ma fonk bi. waaw loolu doyal na ma sëkk. ak ponkal yi ngay toogal. ñi may ñu respecté la. ponkal ponkal international yi. waaw dañoo xam ne Isaaxa mii. waaw. ah ma wax la wax. waaw dama nekkoon Turquie. waaw ñu may wax leen dëgg ma def Arabie Saoudite ma wax leen dëgg. Mhm. ma nekk si seen biir. Mhm. ñu ma waay yow yow yow yow ambassadeur Afrique nga de. ambassadeur Afrique mu ne gars yi réputé xalaat bu bon bu ñu am si africain yi. Mhm. ñun yow fu ñu toll nii taxal nga Afrique ma ne ko ñun Afrique dañoo gëm seen bopp. ñun Afrique ñu gëm liggéey. ñun Afrique dañoo bëgg lekk lii. Mm. am na maanaam da ngeen déggee koo xamante ne baaxul rek nga yaakaar ñëpp benn lañ. Mm-hmm. waaye ñun ñu baax lañ ñu respecté suñu bopp lañ. Mm-hmm. boo ñëwee si alxuraan. Afrique kenn dàquñu alxuraan. macha allah waaw waaw gisoo soxna Ndate Cissé. ca Dubaï. fu ñu di moon alxuraan fu ñu dem africain fu mu dem. Mm-hmm. bu gëmee boppam. nangoo liggéey. si kanam rek ngay dëkk. kanam rek nga jëm. man dama bañoon wax si télé. waaw bañ wax si rajo. Mm. bañoon ko Cheikh mi yaa ma dugal si wax. maa la ci dugal ci it yaa ma si dugal. mais da ngaa yor njëriñ man njëriñ. damaa ne damay toog man si soxla xabat sawda. Mm. képp ku soxla di nga ma fekk sama place. dina la fekk sa place mais ma déedéet foog nga génn. foog nga génn ma topp ma ay at at waaw. ba juróomi at. ñeenti at ba juróomi at. mën naa la kaay feeñ billahi nga andi ma tegtal di ci saraxul sax pour nga feeñ waaye léegi boobu nit yi laa ko bëggal. wallaay léegi léegi nag. Mhm. bu ma saraxoo ba bi ma génn ak léegi. Mhm. li nga li ma doon xalaat. waaw li ma ne ñu bañ ma jaawale ak ñeneen ñi. Mhm. yalla dogal na. ndekete woo. jaawale ñu ma. jaawale wuñ la. da ma laaj laaj bu leer nañ. ma ne ko man gisaane wu ma. waaw damay wax defal sarax bi. doo def sarax lay faj. mu la wax ñaata la lay fajee mm-hmm. da ngay ñëw nga jënd produit <laughs> xaalis bu mm-hmm. bi jar deux mille nga jënd deux mille bi jar cinq mille nga jënd cinq mille lu nga jënd trois nga jënd trois nga dem faju nga dem faju ba nga dellu siwaat nga dellu siwaat sa ñu wax la ko bu nekk vingt cinq ñu wax la ko mm-hmm. après ñu ne boo fi nekkee boo fi nekkul foo mën nekk rek nit mën naa fajee boppam nga faju ba dem yëngu leen nga faju bu dem Médina nga faju bu dem Kër nga faju bu dem eh, nga faju mm. bu dem Kaay nga faju bu dem Bamako nga mm. nga faju boo demee Tektal boutique Tektal boutique nga faju 108 51 51 waaw mundur nekk Paris ma nekk fi ma ñàkk fi nekk yëpp day dox macha allah macha allah kon lii moo tax ci Europe bi fépp ma nga fa ma nangul la mm. pour nekk fi ndax man fu ma nekk mm-hmm. wane ma ne damaa man te wax la ne am na nit yu ma dugalal ay Wave ak Orange Money ay euh, xeetu yóbbante bu ne pour jël bagage si soxo wax naa la ko ay yoon. jël bagage si soxo kontaan ba tax ñu defal ma loolu. tey fii may ñi ma ñëwee nii lu ci bari du ma dagg billet avion lu ci bari du ma fay hôtel dina am ñu ko res ndax lan bég ci li ma leen indil am na ñu ma indi ñu merloo nit ñi. mais maa indi ki leen di merloo ak ki leen di bégloo lii mooy sama yéene looloo tax ma topp la ñeenti at juróomi at di saraxo pour nga ñëw man liggéey bi kafuma ci fowuma ci réewuma ci bu dee deux heures du matin dama ciy sonn da nga gëm sa billaahi gëm sama bopp gëm yàlla bu bëgg nit ñi am leen bëgg te duñ sonn lii rek a ma jaral lii dañoo war a gëm suñu bopp mhm. ku ne gëm sa liggéey mhm. sa liggéey nag foofu ngay jóge foofu ngay daanoo foofu ngay jóge fa ngay daanoo sa liggéey foo ko fonk rek doo daanu mukk sa liggéey Mm-hmm. mun na am tey. ñu wala problème suba. sa liggéey ma la ko jaral. Mm-hmm. waaye nit ki da ngay xool. Mm-hmm. nga gëm sa bopp. gëm sa bopp. gëm sa liggéey. nga ànd ñi baax ñi. ànd ak ñu baax ñi. jeex na nga am xol. am xol bu rafet liggéey. waaw bés boo defee loolu. incha allah si kanam rek. yàlla dimbali la yàlla dimbali la. léegi xaalis. waaw du affaire bi. xaalis bëri du affaire bi. du bi. maanaam yéene bi. yéene bi nga am ambition bi. ambition bi nga am loo teg sa kanam nga ne man lii laa bëgg. Mm-hmm. am foo bëgg kenn ma si aaye. Mm-hmm. kenn mën ma arrêté lu du yàlla rek. lu du yàlla rek. àdduna bi képp ku jóg sa kaw. Mm-hmm. pour toroxal la moom ma des si ginnaaw rek. moom mooy dellu ginnaaw yàlla moo lay jàppale. yàlla moo lay jàppale. kon ngeen béykat xel baax a baax si soxo mag ñi nag nga xam ne que gaz si soxo bi. waaw korom ñi am problème mu tànk yëpp bu ñu utiliser gaz si soxo bi dañu am kii. macha allah gaz si soxo qualité bi waaw nañ ko jënd rek. moom te ku mënul am bu mag mën am bu ndaw. bu ndaw tamit foofu. ñoo yem da nga si bind ne. waaw essayé soit jugé. sa bopp. nga atte sa bopp jarrib wa antal xakam. juge. boo ko essayé yow yaay sa bopp. yaa ko ñu dégg. ahaay. aññi mën naa kiitindi. maanaam xool ko après nga atte sa bopp. nga atte sa bopp. xam ne moom kenn naxu la sama produit loolu la. sa produit loolu la. sama produit bi nga naan pour biir. Mhm. pour bopp. waaw pour bët. Mhm. pour bakkan. waaw pour mhm. wala sëy. wala am ñàkk am doom. wala faible sëy. waaw jëleel nga essayé nga àtte sa bopp. nga àtte sa bopp en tout cas daal booy wër daal wëral marché marque si soxla lu nga na am na ñu lay jëm a toppandoo de ñu niroog yow noonu leeral bu baax de bokkuñu yow de. ma xoolal boo xoolee vidéo bi di nga gis foofu logo bi. ma di nga si côté ma dugg te yaay yëngal foire teg ci. waaw man kay foire de Dakar. man foire bi da nga koy yëngal de foire dakaar bi. waaw nañ pare. ñu pare. maanaam boo fii leen koy dóoraale sax benn boo duggee si biir foire bii. waaw ñu la xabatu sawda. ñoom maire Diallo nga fa. nee leen si soxo laa bëgg gis. si soxo nga bëgg gis. dama si place si sox te bi si jotee damay wàññi prix yëpp. da ngay wàññi prix yëpp. kon ngeen bàyyi xel foire bi ñëw na ak si sox xabatu sawda day neex. ma ne la. foire baa su commencé du ma fekk. waaw waaye ay quelques jours. bis mooy wàcce Dakar. waaw ñëpp yëg ne wàcc naa. ñëpp yëg wàcc na su may dugg si foire bi. waaw ñëpp xam ne si soxla dugg si na. Mm. suma stand ba. waaw bokkul ak benn stand. bu yokkut ak benn ñoom maire Diall sa waxuñu jaay sa de. waaw ñun li ñu soxla mooy nit ñi nañu am seen confiance. confiance boo jëndul sax. waaw amul problème. amul problème ñëwal nga gis foofu. ñëwal gis lu baax la xam nga si soxla moom moo bokkul ak ñeneen ñi. bokkut ak ñeneen ñi markam bi dafa baax. dafa baax certifié nañ ko. waaw Amérique. Amérique France France. alhamdulilah alhamdulilah waxatuñu Afrique. waxatuñu Afrique. Afrique waxatuñu ko. non non non dépassé nga Afrique international nga. man international laa. Mhm. te marque dama ko defar marque bu baax la. Mhm. foire ba nag damay ubbi foire bi. da ngay ubbi foire bi. foire bi décembre bi. waaw waaw. day toj de. day toj da nga yëngal ak yu bees sax. damay toj foofu yëpp. yëngal bu baax a baax. après nga ñëw nga dégalewaat ko. après ñu ñëw dégalewaat jeex na kon. kon foire bi ngeen bàyyi xel. directeur foire bi sax xam na ne. Ah. foire bi waaw Sénégal. waaw si soxo ñu bëri si soxo moo tax ñu ñëw si foire bi. mu ñoo tax ñu ñëw bi. waa CICES. waa maa leen ko wax de. Ah. man si soxo Abad Sawda. Mm-hmm. xam ngeen ne man yëngal naa foire bi. si soxo moo yor bayra foire bi. maanaam si soxo bu fa nekkee. bu fa nekkee fay bëri day yëngutu. te ba pare waaw. tànk sama stand amu foofu. waaw. dara du baax. ku dugg ci bi rek laajteel si soxo Abad Sawda. fan la nekk boo ñëwee di nga fa am loo bég bu baax a baax a baax ci biir foire ba nag am na bu koy yëngal bu baax boo xam ne que ñu bari kersa ñi. Mhm. dañuy ñëw kobas bu wut ko ñu amul kersa ñi dañuy ñëw téeg pour yëngal ko mooy boobu gan gu mujj googu noonu di dox ci kër yi jàmm di dox jàmm. ah boobu nu mu tuddati. scorpion. scorpion king. scorpion king. maanaam boobu boo ko jëlee benn yoon. benn yoon di nga ko koy jëlaat de. di nga ko gë di nga ko jëlaat. di nga ko gëj a jëlaat. di nga ko gëj a jëlaat wàllum ngóor la dégg ngeen ko. ndax boo ko jëlee benn yoon. waaw di nga ko denc lu yàgg. di nga ko denc lu yàgg. après nga door ko soxlawaat. dégg ngeen ko. te wàllum sëy la te du lu ni naan du lu ni lekk du lu ni takk du lu ni suuroo. waaw baax na boobu moom bàyyi ko noonu. muy bàyyi ko noonu. wax li ñu koy utilisé rek voilà ay code la. dañ koy bàyyi ko noonu rek. ay code la dañ koy diwoo. dañ koy diwoo. waaw loolu. waaw. suy soobee yàlla. waaw. si foire bi décembre bi. waaw nañ ma ut si. nan la ut si. bu ñëwee si stand yi. waaw su soobee dañuy gis si Soxaba Sawda foofu. dañuy mm-hmm. gis bi foofu. Mm-hmm. nañ xam prix bu yomba yomba prix bu yomba yomba yomba yomba. daanaka escorpion wanteer la. tubaab yi jël ko naar yi jël ko. ñëpp ko jël chinois yi jël ko. ñëpp a ngi ko jël. gis nga moom boobu dafa yëngal jamono. di escorpion daal moom day dugg ci kër gi rek la ko. maanaam koo xam ne respecté la ci kër gi mu tax ñu respecté la benn jigéen bi nga xam ne que jëkkër dafa bari kersa mu dem wutali ko ko mu ñëw bég te amul benn effet secondaire. amul benn effet secondaire. Hmm. amul benn jàmm rek jàmm rek. jàmm rek en tout cas daal. waaw ñu ma lay wax si gàttal. waaw si soxo. commence si bopp bi. waaw ba si suuf tànk bi. waaw feebar bu am. waaw soobee yàlla. Hmm. garab yi da koy faj. résumé ñu ko ci anglais tuuti. from your head. Fatima Doucouré nekk fi waaw up to your foot. oui. every type of disease. mm-hmm. they can cure it. Oui. Prophet sallallahu alayhi wa sallam say black seed oil can cure all diseases except death. Yonent mhm. sa dafa wax ne xabasa dafay mën a faj mboolem feebar. ba mu des feebar dee. Mhm. commencé sa bi ba suuf feebar boo am mu fajal la ko mu fajal la ko boobu xabat sawda rek nga ko mën am xabat sawda rek te si soxo marque bu baax lay defar marque bu baax lay defar yu bees yaa ngi si foire bi yu bees yaa ngi ñëw waaw te noonu moom garabam dafa neex de ay garab wax maa ko defar waaw yaa defar maa leen defar de ah. dem nga sama place garab non non dem dem naa ñëw man maay defar takk kii defar sa kanam en direct sama conteneur yaa ngi sama packaging yaa ngi ñëw conteneur defar karité bi karité parce que Sadio Mané dina war a faj tànkam yi moo gën a di ko jox karité. parce que pakistani ma wax ne. waaw Sissoko. waaw est-ce que xam nga Sadio Mané. waaw mën ko sénégalaise la. waaw xam naa ko baax la. sénégalais bu baax la waaw xam naa ne am diine la. Mhm. comme ni ngeen ko waxee. waaw ba ca imaamu imaamu kii sax seede na ko waaw. ñu ne ma ko gis ma ne ko su ma ko paree naa ko gis. Mhm. su ma ko paree gis. waaw mun naa ko gis. waaw bu neexee ndax man li ma ñëpp ma bëgg gis. ñëpp la bëgg a gis. président yi Sadio Mané moom sama quartier boobu. waaw war na ko di ko diwoo. war na di ko diwoo. du Afrique les les présidents ci àdduna bi ah, ah. Afrique les présidents ci àdduna bi. waaw waaw waaw man ma yor produit ko diwoo. Hmm. di nga am dina la faj. waaw te di nga dëgër. et eh, moom moom Mamadou Touré Marcelo numéro 12. cousin Sadio Mané déggal message bii nag yaa ngi maa ngi fii ci France bëggoon naa jaar jël la benn reportage pour ñu wax ci yenn euh, mbir yi mais ni mu demee la. da yow dañ lay denc ba ci kanam rënk la pour da nga war a doon avenir Sénégal yàlla yàlla lafal cat. amiin loolu lay wax bu baax a baax mais waxal Sadio Mané si soxla dina ko jox benn cadeau naa ko jox nga jox ko ko bu soobee yàlla bu baax a baax pour mu diw ko ci tànk yi ballon door yu mag yi ñëw international. Sadio Mané di ko tegle di yëngal bu baax a baax parce que. dë sorce bi ah jël na ballon door mais deuxième Sadio Mané bii bokk ak ballon d'or bi de bii moo gën a valable de te nag dañ koy xeeb. séntu lu a daal ngeen ñaanal ko baax saay rek baax na de carte baax na de day gën a sawar carte bi day aar nit ki sa njabar ni affaire liggéey bi da koy toj moom nan ko jox nag buñ jox la roi Sané dégg nga Souleymane Sané yàlla na fi yàgg tawér yàlla lay kàttanal la mais Sadio Mané moom lan gën a fonk ci le roi Sané le roi Sané moom baax na mais xam naa bu dayee man ci mbedd Allemagne yi Allemagne indil problème mais Ousseynou laa àndal te xam nga ko dafa day entraîne da tey war ngaa football Sénégal ah si sa xabar sana léegi ban ban la duggaat ci biir bagage yi euh, comme Fatima Doucouré euh, ñu ngi koy ñaanal bébé bi moom jàmm ak sama salaam ak xewal bu baax a baax a baax bu fi nekkoon moom développé moom kay man bari naa produit ah, ah, léegi ban ban nga nawaat boo xam bëgg nga ñu dugg ci miel mante bi miel mante bi mu ne miel mante bi oh. boobu ko defar boobu tamit ci yi ma gënal la miel mante bi dama koy utiliser parce que boobu dafa baax ci waxkat sama saar yi nga xam dañuy wax rek am na entreprise dafa neex waaw am nañu entreprise fi Allemagne waaw tey gi sa laa jógee. waaw Allemagne dem Allemagne fii. am nañ uh-huh. fi ñoo xamante ne man ak ñoom ñooy liggéeyandoo. Uh-huh. macha allah macha allah. léegi nag pare nañ pour defar melmante bi fii. Mm, Europe fii jeex na kon dama ubbi boutique Allemagne. waaw fii Europe waaw ubbi ko Cologne. ñu tasaare ko fépp si Europe tasaare fépp. ndax soo sëqatee waxal njëriñal mant bi. mooy melmante bi waaw. boo ko naanee. moo ko naanee. booy sëqat day. day arrêté day arrêté. boo sa dënd di métti. waaw da koy ubbi da koy ubbi. boo xam ne asma. day dañ bu amee see biir bu seere mhm. baax na si am na Mout Sarr boo jàkkaarloo wal fajir sa bërat ak a xam njëriñal boobu macha allah taalibe Cheikh li nga ma waxoon ci teewaawoon ca kanam naa ci jóg de incha allah bu baax a baax a baax mhm. kon mil mante bi ngeen bàyyi xel tamit am na tegtal boutique de ca derkale wetu station xaar yàlla Oumou Ndour nekk fa 77 108 51 51 waaw produit soxna may Jóob yi tamit mu nga ci biir tegtal boutique bu baax a baax cere yeeg muraake yeeg yëpp am na kon si sox xabat sora bi ñu jógee ci man xaar ma jaxaat numéro yi. jaxaat bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di ki wax ci saal mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro Sissoko Habbatu Sauda dafa 77 661 52 32 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 S S S Sissoko Habbatu nekk ci France boo soxlaa produit rek demal fi taqaloog yëngu leen jërul woote sax bu la neexee di nga fekk Basir fi taqaloog yëngu leen. après dinañ dinañ def numéro France yi. numéro dinañ leen ko bindal. ngeen gis ko ku ko soxla sans nga utiliser WhatsApp. nga kii ko baax a baax équipe technique Tektal TV leen àndal ñëw Paris Baye Massamba Diop ak ngi fi ñëw na Paris bu docteur Wade mi ngi Paris Petit Sow mi ngi Paris ñoom soxna May Diop ñoo nag Mamadou Guèye ak Pathé Seye Sayer Fall ak ñëpp ñu ngi fii ci Paris. Tektal TV ku mën nañu toppandoo ñun foruñu calme tubaab de mais ci dëgg la ni dox ba fu nu neex ci àdduna bi dañu dem def ci émission états-unis moo ci des bu baax a baax ci sa xabit soda fan la ñu dugaat nga ne ci produit yi bon nawaat loolu dugal par benn léegi nan ñëw ci ventouse bi kon ba pare ventouse bi ventouse bi xam nga maasax dafa yëngaloon réew mi sallam ma wax ne uh-huh. yonent sala bu mu yëgee si kaw waaw dem jëli julli waaw amal mboole malaaka yi ñuy wax waaw dañ ko dañ ko wax Muhammad ya salaa sallam alayka bil xijaama yaa hmm. Muhammad mar umataka bil xijaama hmm. yow Muhammad del digal sa waa njaboot hmm. nañ def ventouse nañ def xijaama dindi deret bu bot bi seen yaram ndax deret bu bot bi su nekk seen yaram mun na yëg ci kaw te su yëgee mun na la rey mun na la rey nañ ko moytu bu baax a baax nañ def ventouse mu dindi deret bu bon bi suñu yaram feebar yi sew yi sa tam dafa wax ne eh, wiqaaya la wiqaaya maanaam eh, ventouse. waaw protection la. ba pare day faj. day faj kon ngeen bàyyi ko xel ventouse day xaw a niroog massage comme massage dafa yëngaloon réew mi. léegi nag bii nag moom bi mu yor. góor góor lay defal. jigéen jigéen a lay defal mu doon lu dagan daal lu sell. waaw lu sell lu dagan. lu tegu si yow mais dégg naa sax. doo ko allah kon abonné leen Tektal TV ba su ba su cloche bi émission bu ñëw ngeen am ko. Euh, Baye Massamba Diop toolal caméra bi te bàyyi tubaab yi ngay xool ah pétition xool leen caméra bi toppatoo leen docteur Wade Ibadou la mi ngi jàpp njàmburam ngeen nekk di xool tubaab bi fii ay jigéen indiwu na fi de liggéey moo na fi indi liggéey leen bàyyi caaxaan bu baax a baax a baax ci biir Tektal TV abonné leen ku mu neex nga abonné ne mu neex bul abonné nga abonné doo ci fay dara si soo so soda ban produit nga ñu indiwaat ci njariñam ci sa biir bagage. waaye mën naa andi bi. mix mix xaab. mix xaab. xultatul axsaab. waaw boobu ay me ay gàncax la yoo xam ne dañu leen jël boole leen. boole leen ci biir sachet bi. ci biir sachet bi. sachet boobu nag da nga koy baxal. da nga koy baxal. garab yi Inde am na fa. Inde am na fa Pakistan am na fa ñu nekk Arabie Saoudite am na fa. Mhm. africaine tamit am na fa. am na fa am na garab yoo xam ne pour jigéen la spécial. pour jigéen la spécial pour jigéen boo xamante ne dafay am biir bu métti. waaw wala mënu am doom. Mhm. wala problème mu am problème biir. wala mu am xet bu bon bu jóge si moom. waaw wala dina la ne la bu baax. Mhm. wala mënu am doom. waaw dafa gaaw si loolu. dafa gaaw ci loolu dafa raxas bi nga set wicc. raxas ba mu set wicc. moom mooy mix xaab boo ko naanee. xet bu bon sax du ko am sa yaram. xet bu bon sax du am sa yaram. déedéet sa deret circulé normal. ëpp na fukki euh, gàncax. ak juróom. waaw wala ko ëpp yëpp mu ngi si boobu. mi ngi ci boobu. boobu daal bëgg naa ñëpp am ko. ñëpp am ko. ñëpp am ko mhm. di ko utiliser am nañ huile d'olive. huile d'olive. boo xam ne olive oil lañ koy wax. waaw zeytun. zeytun moom mhm. lañ koy diwoo. Mhm. moom ko xabat boo ko diwoo sa yaram bu fekkee liggéey sa yaram sa da sentir ne mu ngi sa suuf tànk sa yaram nga oyof tooy nga ñelaw bu baax Uh-huh. boobu olive oil lañ koy wooyee mm-hmm. yàlla si wàcc si alquran ah. wa tiin wa zeytun zeytun boobu nag waaw dafa am doole dafa am doole dafa baax lool mm-hmm. surtout marque si soxaba sawda man dama bëgg ñu bàyyi bu baax ñu bàyyi ko xel marque bu baax marque bu baax a baax marque SSS dañoo bëgg si soxaba sawda ñu bàyyi xel marque bu baax a baax a baax uh-huh. boo fa jógee waaw am na boo xam ne quoi women secret waaw uh-huh, maanaam secret jigéen ñi jigéen ñi jigéen xam ne te duñu yëg bànneex duñu yëg bànneex am nañ boobu tamit Mm. jigéen ñi sëy ñu amee métit métit <coughs> jigéen bu bu am doom waaw du am soow du am yaa ngi dégg ah. am nañ boobu tamit am nañ boobu tamit am nañ boo xam ne jigéen tamit pour seen parti bëgg a yokk seen parti bëgg a yokk parti ah, ah sa yooyu waaw ah, am nañ boo xamante ne bi naturel la naturel la baax na lool kan da ngeen ko jigéen bëgg a yokk ans jigéen yu wow yi koŋ te bëgg a kii si soxo neen bu ngeen ñëwee di ngeen am lu kawe njort bu baax a am nañ boo xam ne Zeynab Oil. Zeynab Oil. Zeynab Karité. Zeynab Karité. am nañ ko. Mm-hmm. am na yëpp. am na yëpp secret Zeynab. secret Zeynab. am na misk Zeynab. misk Zeynab. yëpp am na yoo xam ne affaire secret jigéen ñi la. après secret jigéen xam nga góor la. waaw mënu ma fi nekk di wax lépp. Ah, nga ah. xale jigéen ñi ngi yoon fii ñoom bu doon Fatima nekk na fi moom mooy mooy lijjanti yooyu bu baax a toj yax bi mooy toj yax bi mm-hmm. am nañ ko mm-hmm. boo demee foofu tamit waaw wax nañ fa asma mm-hmm. pour ñu sëqat la asma waaw ñi ñu mën a ñu sëqat ñu mën a tey ñi nga xam bu xiinee ñu am problème bu tawee ñu am problème bu nekkee fu xat am problème boobu am nañ ko boobu xam ne am nañ ko si boobu am nañ ñoo xamante ne bi mënul am doom. ñi mënul am doom stérilité lañ koy wooyee. Mm. góor boo xam ne sa ndox bi. ndox bi dafa bëriwul dafa wala booy mm. du am bànneex. Mm. wala sa ndox bi du bëri. waaw boo ko jëlee dina tax sa ndox bëri. day tax sa ndox bëri. ba pare da koy defar. ba pare boo mënti am doom tamit dina dimbale. nga am doom bu baax a nga mën am doom. léegi jigéen bu dul kii nag jigéen boo xam ne que day gis règle. Mhm. muy retard wala du normal wala yooyu itam am nga lu ci jëm. am na am na. am na am na misk bi misk ah. bi Euh, kii mu ne euh, siwaak bi am na poudre bi poudre bi am na omen secret bi mhm. am na mixab bi mixab bi boo jëlee yooyu nga boole ko waaw nga jox ko jigéen mu koy naan bi mu koy baxal waaw bii mu ko def si ndox bu tàng bi di ko naan mhm. ah dina baax si moom loolu dina baax ci moom loolu am nañ fenugrec boo xam ne fenugrec si soxaba sawda la fenugrec am nañ huile bi huile bi bi am nañ bi nga xamante ne bi mhm. bi mooy poudre yaa ngi ci bi waaw am nañ miel bi miel bi am nañ grain bi. grain bi lii yëpp dafay faj doomi aadama. Mm-hmm. kon daal si soxla am nañ boo xamante ni dañ koy wax alxayaat. alxayaat sa bopp nu mu métti métti boo ko boo ko fóonee dem na. dem na. bopp bi muy métti. waaw. bopp bu diis. bopp buy diis. wala ngay stressé wu. wala ngay di métti. Mm-hmm. nga di alxayaat bi nga am jàmm. nga am jàmm oui mais dafa fort de boobu. dafa fort. waaw mun la baaxee tamit dafa fort de la ilaha illallah. macha allah kon alxayaat daal ngeen bàyyi ko xel. boobu moom bu bopp bi day sedd ci saa si mais am na doole daal macha allah boobu xale waru ko jël xanaa xale bu ndaw ndaw dee di ko jël xale boo am na deux ans di nga ko a bopp bi nii waaw alhamdulilah baax na si ñoom trop baax na ci ñoom trop bu baax bi ak miel si adduna bi boo na ko faj mën na ko faj am na huile xabat sawda sawda am nañ ko am nañ grain bi am nañ mhm. am nañ cannelle cannelle ak miel boo xam ne keneen la bio la bio la sa tànk suy métti sa ndigil di métti waaw wala sa bi di métti nga hmm. diis waaw boo ko naanee rek baax na boo ko naanee rek dimbali sa cholestérol bu yëg bu amee jabet da la ci dimbali da la ci dimbali raas sa deret bi ah. moom su tilimee waaw wala du cycle normal hmm. da nga am problème da la da lay koy dindil ba pare am nañ coule de girofle avec miel hmm. maanaam xorompol ak lem xorompol ak lem bu am xet bu bon bu lu baax rek laa accident bi muy métti mm. wala nga am yaram buy xasan wala nga am góom mm-hmm. moo xam nangul te wér wala booy tur ndox mm-hmm. muy métti muy métti wala du ñëw bu baax du ñëw bu baax nga am infection infection daf koy dindi ba mu set wicc daf koy dindi ba mu set wicc yooyu yëpp daal macha allah man kay li ma am si produit kay li nga am bi moom moom moom mënu ma ko wax te day yokk rek mënu daal man damaa këru bagage si ko pour alpinia ñilaar a waaw am nañ bu xale bu ndaw. Mhm. am nañ bu mag. mais comme yooyu tey par exemple président bu xel mi neexul woon bu koy naan xel mi day neex. waaw waaw entraîneur bu xel mi neexul woon bu koy naan. moom pour doomi adama bu ko doon naan mën na dem ba mel na Guardiola. macha allah gën ko ay. xel bi dina neex xel bi dina dellusiwaat. Safi entraîneur Barça bu ko doon naan xel mi dina gën a neex. macha allah dina ma ne la bul wax dara. bul wax dara nañ seet ma produit rek. kon maa ngi ñëw dem Barça wut ci Alpinia bi yóbbul ko Safi mais man nag man nag lii mooy nag wut paaka nag jox ko sa mbokk mu mu rey la de man bo reyal laa pare jël alpiña bi jox ko sa fi mu naan xel muy neex ah noonu wóorul de bu dee ak yeneen yi ma jox ko parce que Barça moom saay ak onze kañe sax kañe yi faral mënu ma ci dara ci Barça. et presse nag maa ngi koy gërëm président Real Madrid gis nañ euh, taxawaay bi ak Sayer Fall bu tekkee rek presse moo nu tekki loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax. Cissokho euh, Haberton ak ban nga def fan foo ñu yóbbuwaat. man fi ma la yóbbu rek. waaw mooy damay wax ni ni may liggéeyee. ni ngay liggéeyee. man ni may liggéeyee. set gi waaw. pour ñu yëpp xam ko mu leer leen. Mm-hmm. ñu gis la ñu bañ la gis mënoon faju man nga gis man ngeen bañ ma gis mën ngeen faju mm-hmm. ba benn la. benn la foog ñu comprendre loolu bu baax a baax. macha allah noonu laay liggéeyee. mu def produit ba mu baax teg leen si place yi. Mm-hmm. former ay gars ñu nekk foofu. su fa fekk si soxo sax ñu nga fa fekk. ñoom basi deux mille francs ngay fay consultation. boo ñëwee deux mille francs mooy consultation. mooy consultation bi Dakar. waaw boo ñu laaj la ma sa problème nga dugg si biir. Mhm. nga gis ak Bachir wala ku fa nekk. wala jiite. wala mhm. képp ku nga gis ak moom nga expliqué ko bien lan moo la jot. Mhm. ak lan ma sa problème. mu xool ndax da nga war am garab mo bind la sa garab yi. mu bind sa garab bu tollee junni. mille. nga jël ko vingt cinq mille trente mille mille.

déedéet duñ def loolu. duñ def loo loo joxe. waaw loolu la lay jox. loolu la lay jox service bis boo ñëwee fee service bi waaw la service boobu. waaw boo demee machine ba nga ne man dañ ma bind quarante mille trente cinq mille. quinze mille ma loolu cinq mille hmm. am. jox la garab bu jaar deux mille da ngaa dégg wolof dama ne la ku ko mënandoo nag fayandoo lépp baax na. déedéet déggoo ma de. ñaar yëf mu am pour ñu leeral ko nit ñi. waaw ñu ñëw hmm. boo dem ventouse ba. waaw fois da ngay vingt cinq mille. première vingt cinq mille mooy ventouse ba waaw. boo ko defee ñu ala ñu xool la pare. waaw jox rendez-vous pour nga ñëwaat. pour nga ñëwaat rendez si waat. pour faju si waat boo doonee milliardaire ak boo doonee junior. waaw mm. léegi nag muy pharmacie ba su fekkee am na garab boo war a dem si pharmacie ba. waaw ñu mel la trente millions quarante wala cinquante mille. waaw wala vingt cinq mille. Mm. nga dem si pharmacie ba. Mm. nga man aw ma loolu li la am. li nga am moom la lay jox. moom la lay jox ba nga amaat leneen. xam nga amaat leneen nga dellusiwaat. noonu la ñuy fajee. noonu ngeen di faj après ngay respecté rendez-vous yi nag. incha allah lii rek la ñuy fajee Sénégal. monsieur mm-hmm. seen boobu laa yor si yëpp chef. si mm. adduna bi moom laay liggéey moom ngay liggéey yow daal mais ku nekkoon France nag soxla consultation ci yow am mënul nekk am na ñu ko fi def man maa fi nekk man maay ñëw toujours te yaay dem Dubaï yaay dem Turquie yaay nekk fépp may man may dem mm-hmm. fii France moom mm. comme France moom maa ngi jaay sama dëkk la waaw nga ko ba mu dëgër su ma ñëwee si set sama nit ñi waaw ma def fi un mois képp ku ma soxla ma jël gis ma mm-hmm. su ma demee ma mm. deux mois trois mois ma ñëwaat mm-hmm. ñu dellusiwaat wala ñi bees ñu bëgg ñoo ñuy waat mhm. après ma bàyyi leen ak garab yi sa garab jeex nga dem sama gars yi fii nga dem jënd nga dem jënd ba keroog may del si waat mhm. noonu laa liggéey ak waa France sa adresse France mën nañ ko joxe wala ne man jox bu jox ah, la dégg nga ma ba mu bàyyi moom dina leen wax daal ni di ngeen mën a am bagage daal ci ngeen am bagage yi waaw su may ñëw France waaw ndax man su ma joxe adresse ne maa ngi place sàngam ah. day fees day fees del del del baagante kan da ngay baagante te loolu day ëpp. day ëpp xam naa li nga wax. si kaw suuf. loolu moo tax mm. dañuy joxe rendez-vous. mais fees la boobu bayra la wala yor lu baax rek. yor lu baax la rek. Mm. <laughs> yor lu baax la rek. <laughs> léegi dañuy joxe numéro bi. waaw ñu woo la téléphone nga woote. Mm-hmm. ba woote ba pare. Mm-hmm. nga jël rendez-vous. waaw jox la rendez-vous jox la bés ak jox la waxtu. waaw ñaan da nga ñëw rek si soxo nga dem sa yoon. gis sa xol rek dem sa yoon. waaye ndax suñ ko ubbi moom wax adresse bi. waaw day fees ba mënuñ ko contrôler problème day kon xaaral ma joxaat leen. numéro boobu sama adresse la nekk. foofu ngay nekk. am na beneen boo xamante ne su ma doon salon. salon ma salon. waaw ne ñëw. Hmm. na am lu mat cinq juróom benn euh, téeméeri junni nit. non non benn junni. Ah. juróom benn junni. nit waaw. commencé suba ba guddi. suba ba guddi. ba guddi. di consulter di faj di ñaan. di consulter di faj. di eh, di di jox ñi garab ñuy dem di ñëw. Mm-hmm. ñi jaay rek garab yi ëpp nañ trente personnes. trente personnes fés boobu góor ak ah, jigéen. après ma bàyyi leen mu dem Sinwaa yi jënd. après ma bàyyi leen mu dem. Mm-hmm. après ma dem toog sama place ba. waaw ñu bëgg ma gis ak ñu gis ma par jour. waaw par cinquante personnes wala cent personnes par jour. Mm-hmm. ma gis ñooñu bari benn benn. benn benn salon bu mag bi moom ay quatre mille cinq mille personnes ñooñu ay six mille personnes. cinq mille boobu six mille personnes. salon salon bi. comme ah, Zara Foire kon xaaral ma joxe waat numéro bi parce que ñi ko soxla bu baax na bu baax a baax si sox xabar soda koo xam ne que euh, yaa ngi ci biir dëkk bi fii ci Europe bi wala France da nga def 77 661 52 32 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 SS Sissoko Habbatu Sauda Isaaxa Sissoko Euh, nekk ci France ak euh, bu dee Dakar fi taqaloog yëngu leen bu danga bëgg bagage tamit nga fekk ko fi taqaloog yëngu leen nga ñëw fa xool la nga bëgg wala Médina Rue 1 wala Médina Rue 1 angle 12 angle 12 jiite moo fa nekk wala wala nga dem Kër Massar nga fekk euh, Kër Massar jekkite waaw Ndeye Fatou. Ndeye Fatou. waaw waaw Ndeye Fatou nga fekk foofu. Mhm. si Saint Lazare. en face en face. Saint Lazare waaw bu la neexee tam nga dem Tektal boutique fekk fa Oumou Ndour 77 108 51 51 ci wetu station xaar yàlla Tektal boutique boutique boo xam ne ku jege foofu di laaj produit yu yi rek. fa lay dem xooli ko fa bu baax a baax Tektal boutique du lu ne fay dugg kon bagage si soxla xabar sawda mais numéro yi dina la jot whatsapp bu baax de wala ñi ko bu baax. parce que dinañ wuy dinañ wuy baax ci whatsapp bi fépp amul nga bàyyi message. na mu comme kii wala nga bàyyi yi boo ci jotee mën ngaa nekk Espagne ñu jox la numéro bi nekk Espagne nga nekk Mauritanie ñu jox la ka nekk Mauritanie nga nekk France ñu jox la ki nekk France nga nekk Sénégal ñu kii la yow moo tax numéro si sax boo gis rek euh, tanteel foofu dina di nga am li nga bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax ak sa groupe bi tamit groupe bu si nga ah, soo ñu ngi ci bi waaw Euh, YouTube fépp Sissoko Habbatu Sauda daal. international boo si Sissoko Habbatu Sauda wolof rek. wolof la di nga ko gis Sissoko Habbatu Sauda oh, wolof rek. di nga ko gis bu baax a baax ak gënoon di defi émission yu baax a baax a baax léegi soxo mhm. ba fan nga nu yóbbuwaat ci li des ci waxtu bi comme bëreetul. Euh, ay huit minutes ñu dese lan fan nga gis ne bëgg lii am na njëriñ te ëpp naa bañ a wax ñu wax ko. alhamdulilah rabbi alamin Cheikh. waaw xam nga ku jaay Habbatu Sauda. waaw mu jàng ko. waaw mu am si diplôme am. am ci diplôme mu dem di ñëw. dem di ñëw Euh, di toog ak ponkali àdduna bi sama a chiffre yi. waaw sama CD yi. waaw ñu ngi si internet bi soriwuñu. ñu ngi ci waaw. léegi nag li may wax lépp li may. Mm. expliqué nit ñi yëpp. waaw mooy sama jaar jaar. sama jaar jaar sama liggéey yi. Mm. képp ku dëgg ma àdduna. te euh, foofu ñëwaatal ñu da ngaa jàng Fass ba jàng alxuraan. dama jàng Fass Touré alxuraan. Mm. ba ba mokkal. jóge foofu ñëw Gàmbi ñëw Gàmbi ne foofu xam jàng xam-xam jàng xam-xam yàlla nattuma ay feebar may feebar di feebar di feebar da nga xiiboon noonu quoi maa xiiboon noonu di ma xale Hmm, mais ngelaw li mosul laa daaneel. déedéet. ah ok damaa xiboon noonu rek nekk si feebar da xiboon noonu rek. kon bu doon xeex da lay gañ. sëñ Abdou Aziz Touré. waaw yàlla na ko fi yàlla yàggal. te wér amiin faj na ma lu bëri bëri bëri sama papa boobu. ndeysaan ma ma ne si soxo. Hmm. comme yàlla dogal na bi am nga xam-xam si lii. Hmm. fexeel nga ñëw Sénégal. ñu ne Modou man ñii sama mbokk daara yi. ndokk daara tuddal ki la doon jàngal ki la doon jàngal ci daara ji te la doon nogg tuddaale ko nañ ah, ku bu koy nettali sama <laughs> mbokk yi moom waaw jàngal nañ ma li ma mën a wax daal dama leen gërëm di leen sant rek waaw ndax lépp lu doon teg foofu hmm. ñu yaru la ñu tegu si yoon ñu xam àdduna hmm. yàlla dogal neen jël nañ foofu xam-xam tey hmm. macha allah fu ñu mënta dem si àdduna bi waaw ñun fu ñu dem dañ tiitaroo Fass Touré dañ tiitaroo Fass Touré Fass Touré lañ jànge Fass Touré moo ñu yar def suñu alquran def suñu diine léegi lu am si àdduna bi yëpp Mm-hmm. gannaaw bu ñu jógee Fass lañ ko am. te barki alxuraan bi la ñu àndal. macha allah moo tax ñu am li yëpp. Mm-hmm. léegi xëyboon boobu nag ma nekkoon Gambie. Mm-hmm. di faju ba sonn. waaw dem Mali. faju ji. dem Mauritanie faju ji. waaw dem Ghana faju ji. waaw dem Togo faju ji. dellu si waat Gambie ma ubbi téere yi. ndekete woo. jërëjëf am na garab yi may war a faj yoo xam ne mu ngi si alxuraan ak sunna. mu ngi ci alxuraan ak sunna macha allah. moom laa commencé di gëstu. sell rek am solo. Mm-hmm. ma gëstu faj sama bopp ba pare bi ma wér. Mm-hmm. bi ma taxaw mën na ma woon toog deux ans lekkuma. Mm-hmm. biir bi dafa réyoon ma am problème tànk. parce que ma dox ci damay sonn. dina dimbal ma ba lépp denc si man. ma nekk beneen façon nekk yor nga condition bu baax alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla mm. léegi nag ma commencé di gëstu nag di jaay nañu garab yi di jaay nit garab garab yi ñu ngi koy jël ñu koy jël fu la ci àddina bi ma gis ne daal lii daal bés bu ma fi taxaw ne foo jàngee li may wax ne dama ko jàng sa téere dugg fi génn fi waaw moom dina am problème di nga am problème ndax commencé na am bayre boo xam ne bayre bu mag la bayre bu mag la macha allah bi day fees del mm-hmm. ma ne xaaral ma dem ma dem jàngi nag nga dem jàngi ma dem Dubai dem Dubai dem toog dem toog uti place waaw toog jàng di am sama diplôme gëstu mm-hmm. gëstu di mm-hmm. am samay tàmp boo xam ne ministre de santé bi moo ko tàmp sama papier mm-hmm. imarat bi après ma door a génn nag mm-hmm. jublu Afrique jublu Afrique jàng li ma jàng ma ngi defar ko Afrique nga def ko Afrique ma wax ne si soxla lu tax doo toog fii doo toog fii maa ngi sant koo xamante ne bi suma sëriñ laa koy wooyee waaw bu sëyri bu Abbas Sall. Eh, sama xarit ci Dubaï. xam nga ñun bu ñu waxee. waaw ah. ñu am ay seede. Mm-hmm. bu séeréer boobu daf ma ne Sissoko ñëwal fii bëgg na nga toog fii nga ubbi fi place. nga ubbi fi place nga liggéey nga liggéey. di nga mën am fi dama ne ko waa baax na dégg naa la. Mm-hmm. bañu ma de. waaw waaye damay xaar bi ma dëgër Afrique bu baax a baax. dëgër après ma ñëw si réew encore. macha allah waaye su fekkee laa bëggoon. waaw même wax damay toog nekk. dina am fu nekk mais ndam macha allah ma bëgg ndam. Mhm. léegi nag dañ ma bàyyi ngum Afrique. waaw ma ñëw di compte toog sama jàng bi. waaw sama produit yi. waaw jógee Syria jógee dëkk bëri. boole ko Turquie ak fu ne. Inde Pakistan mhm. ñëw. Dubaï. ma digale yëpp def ko si conteneur. waaw ñëw Afrique defar ko. Mhm. emballage ko def ko si ay packaging. di ko jaay nit ñi. mu doon nit ñi di ko jël di ci bég di la di di di faju di wér mu yokk di wér. di wér mag ñi di la gërëm. ma continué di jàng nag ba léegi maa ngi jàng ba léegi yaa ngi gëstu. ba léegi maa ngi du ma bàyyi euh, mais mais lan nga yaa ngi loo xam ne que nit ki bu ñëwee fi mu taxaw même pas minutes lu ko dal mu tane wala. li ko dal mu tane. mënu ma loolu ma loolu moom. non mais yaa ngi koy gëstu. waaw maa ma mënu ma hmm. man li ma mën daal mooy jox la garab nga faju jox la nga garab nga faju ma mën la alxuraan nga wér. Hmm. jox la garab nga fa naan. Hmm. nga am wér-gu-yaram. nga am wér-gu-yaram waaye nee na dinaa faj ci cinq minutes trois minutes quatre minutes. Ah. am yoo xam ne dina daan ma pompe ko mu jóg taxaw. nga pompe ko mu jóg taxaw. na xam. waaw mënut a Mm-hmm. ma pomp ko ma jóg taxaw mm-hmm. wala jinne jàpp ko ma pomp ko ma jóg taxaw loolu moom alhamdulilah yàlla may na ma ko waaye faj nit minutes mm-hmm. boobu moom ko mu bëgg a loolu euh, mu mucc si césarienne waaw pour du ko dal ma lan ko mu def césarienne foog ñu xam ko ba pare bu fekkee xam mais ku ko ragal nii rek te mu ci mën nekk déedéet xam nga loolu da ngay ko naan daf lay dimbal buy am ñu ngi foofu xelba xelba ok ngeen dégg ko xelba mm. mu ne boobu boo ko jëlee di nga am jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax incha allah ak ibil xabar sawdaat tamit ibil xabar sawdaat ah? waaye am na kala boo xam ne mën na ko jël tànk amoo ñetti weer amoo ñetti weer waaw doo ko jël dëgg la incha allah léegi waxtu benn dab loo tàggoo bu dul tàggatoo koy sant ak gërëm ak soxna yi maa ngi sant sama ñaari waajur yi ba pare sa ñaari waajur yi di la ñaanal ñu yàgg fi te wér ñu yàgg fi te wér amin sama mbokk yëpp ma lay ñaanal mhm. sama xarit yi sama am di jàmm yi maa ngi di sama liggéeykat yi. waaw ñi ma àndal liggéey si. ki nga doon waxal appel vidéo léegi Gambie kooku kan la kooku fonk nga. kooku mooy directeur bi. mooy directeur bi. Baaxal Jeyte. Ba. Baaxal Jeyte. Baaxal Jeyte Baaxal Jeyte si soxo fonk na la sopp na la. déedéet kooku. dafa doon jàmbaar rek. kooku macha allah sama liggéeykat yëpp jàmbaar lañ. Uh-huh. waaye kooku mooy chef. mooy chef ñëpp ñëpp. dinaa si soxo. waaw kooku mooy chef bi. maa ngi nuyu Malick tamit. Malick mu am. Mm-hmm. man bu ma amee juróom si liggéey bi. waaw xamale moom am na fukki at ak ñeent. la il a dégg ngeen ko. am na fukki at ak ñett. waaw kooku. kooku baax a commencé ak man baax a ji jë ba léegi. Mhm. tuddee ma doom. ànd ak moom. Mhm. am na ñun sonalkat yi ma tuddee doom sax. waaw waaye baaxal la moom. baaxal li macha allah ku baax la. turam bi dafa ne baaxal li ah. Khalil Ibrahima Khalil Diéte ah Ibrahima Khalil Diéte ok. Mhm. Ibrahima Khalil Diéte baaxal baaxal ma suñu papa Khalilu. waaw suñu papa Khalilu. suñu papa Khalilu si soose. si soose ok léegi nag. boo demee Mali. waaw de mu ngi foofu. jàmbaar la jàmbaar la sii Jité. Sidi Jité boo demee Sénégal. Mm. Mahamadou Jité mu ngi foofu jàmbaar la Jité ma nga fa Medina. Mm. boo demee eh, Nord Foire. waaw Malick mu ngi foofu jàmbaar la Malick mu ngi foofu jàmbaar boo demee foofu Moustapha mu ngi foofu caméraman la. jàmbaar Moustapha Moustapha. Mm. boo demee si Fatima ngi foofu. Fatima Doucouré ak Fatou Diakhaté. fa Ndeye euh, Fatou Diakhaté mu ngi foofu Fap Mbaye Koyaté. Fap Mbaye ñoom ñëpp madame Diallo. ñoom Mhm. infographiste bi Baye Amar Baye Amar nga xam moom liggéey si infographiste bi. Mhm. ñëpp ay jàmbaar lañ. macha allah man kay. waaw su ma léemee. da ngay naa juum. Mhm. France mi. waaw su ma déggee kat yi macha allah. macha allah si man. ku ma wax sa tur ak ma waxul sa tur yëpp ma. waaw waaye ñëpp jàmbaar lañ daal. si gàttal ñëpp jàmbaar la kontaan nañ baax a baax. si sax xabar Soda gërëm nañ ñëpp gërëm nañ équipe technique bi ñu balaa boobu gërëm nañ Ousseynou Ly Allemagne jàpp na ci yoonu bu baax a baax a baax taxawunu bu baax a baax Mamy Danfan res na hôtel yi hôtel yi luxe yi nga xam ne que ñu ngi fuuy ci biir dëkk bi di fuuy di ñàngal ñu joxuñ hôtel yoo xam ne que dañu mel ne du laal suuf ñoo fi fi nekkoon sax moo dàq fi Mbappé nekk Mamy Danfan def na loolu bu baax a baax xarit ji ne ngi si suuf <laughs> que moom du Mamy Danfan ay doom bàjjen lañ quoi gërëm nañ Cheikh Bara Ndiaye moom it jàpp na ci yoon yi bu baax a baax taxaw na ay lim def moom billaay sëriñ bu dëgërul boo boo defee lu mel noonu tem nga sànni sa capital mu joxe ko. Cheikh Bara Ndiaye em yi deux la ci joxe tegal ci laneen nag ak laneen ak ak yére lu ne kon yàlla na fi te wér bu baax a baax Mamy Danfa góorgóorlu Sayer Fall moom bee avion yi dëkk yi ni dem yëpp moom moo ko res dëkk yi hôtel yi yeneen yi lekk yi coob yi fu mu mën di doon res na ko bu baax a baax ba ma sàmm ju caméral baay jigéen ñi ngay xool jigéen ñi mënoo leen jeexal. Bamas yemal ah petit yemal ah ngeen nekk nit docteur Wade Ibadou la moom soxlawul ñaareel moo tax yem na ah Mamadou Guèye nekk ci caméra beneen bi tamit Pathé Seye gërëm nañ ko bu baax a baax a baax équipe technique bu Tektal TV daal noonu la woon ñëwoon fii ci Paris ak si soxo sawda yoon bu mujj ci biir émission bi 77 661 52 32 77 661 52 32 beneen bi 77 145 53 53 77 145 53 53 gërëm nañ équipe technique bépp ak soxna May Diop ci réalisation ak ak soxna Seynab Diop Jaxat fàtte ak ñëpp ñi nga xam ne que ñu ngi bëggee Tektal TV bu baax a baax a baax xewal dikk loraa nga dëkk Tektal TV. jërëjëf télé tollu ko fi S S S S S. si soxo si soxo sawda. jërëjëf jaajëf